zawji nabiyi sallallahu alayhi wa sallam anna Hamzata bna Amrin al-Aslamiyi qaala linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam asuumu fi safari wa kaana kathiira siyaami fa qaala in shi'ta fa sum wa in shi'ta faftir jëree nañ ci musaddad xadis boo xam ne ci Aysata la jógee mu ne Hamza ibn Amr al-Aslami dafa wax yonent bi ne ko man damay toftale koor ba tey ñu jëlee ci aïchata radiallahu anha soxna yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne hamzata ibnu amr al islami dafa wax yonent bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam ndax mën naa oor ci tukki mu ne ndax dafa bëri woon lu muy oor mu ne yonent bi ne ko bula la soobee bu la soobee ooral bu soobee itam dogal su fekkee ci tukki nga nekk baabu ida saama ayaaman min ramadaana thumma saafara xaddasanaa abdullahi bnu yuusuf axbaranaa malikun an ibni shihaabin an ubaydillahi bni abdillahi bni utbata an ibni abbaasin radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xaraja ila makkata fi ramadaana fa saama xatta balaga alkadiida aftara fa aftara annaasu qaala abu abdullahi abu abdillahi walkadiidu maa'un bayna asafaana wa qadiidin bunti nit koo xam ne danga tàmbali or ay fan ci fi nga dëkk tukki gaar la ci biir weeru koor nooy def waaye bi passé nii rek leeral na loolu mooy su neexee nga or su la itam nga dog bu weeru koor wee nga fay ko mun a jëlee nañ ci ibnu abbas radiallahu taala anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama génnee na makk ci weeru koor mu ne mu or ba egg këdit ba mu eggee këdit këdit place la boo xam ne mu ngi nekk diggante asfan ak kadit ci yoon yi Makka mu ne ba mu eggee foofu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma xam naa tàng naa ak moom mu daal di dog bi mu dogee nit ñi nekkoon ak moom yépp daldi dog sallallahu alayhi wa xaddasanaa abdullahi bnu yuusufa xaddasanaa yaxya bnu xamzata an abdirahman bni yazid bni jabirin an ismaila bni ubaydillahi xaddasahu an ummi dardaayi an abi dardaayi radiyallahu anhu qaal xarajnaa ma'a nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ba'di asfaarihi fi yawmin xaarin xattaa yada'a rajulu yadahu ala ra'sihi min shiddati alxarri maa fiinaa saa'imun illaa maa kaana mina nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa bni rawaxata mu ne solo nañ jëlee ci umu darda mu jëlee ci jëkkëram abu darda radiallahu taala anhu mu ne génn nañ ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tukki ci weeru koor ci bis bu tàng nag mu ne dafa tàng ba nga xam ne danga gis ko enu boppam ak ñaari loxoom wala ak loxoom ndax tàngaay wi mu ne kenn nag ooru coon ca tukki moomu lu ma yonent bi sallallahu alayhi wa ak ibnu rawaxata sallallahu alayhi wa sallam baabu qawli nabiyi sallallahu alayhi wa sallam liman dulila alayhi wa ishtadda alxarru laysa min albirri alsawmu fi lsafar xaddatanaa aadamu xaddatanaa shucbatu xaddatanaa muhammadu bni abdirahman alansaariyu qaala samictu muhammada bni amri bni alxasani bni caliyin an jaabiri bni abdillahi radiyallahu anhum qaal kaana rasulu llahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin wa فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في fi bunt yi waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci koo xam ne eral nañ ko defal ko ay parasol ci kawam ngir tàngoori jaww ji ci weeru koor yonent bi wax ne bokkut ci lu baax daal walla bokkut ci jaamu yàlla dëgg-dëgg nga nekk ci tukki di or waaye loolu ak yorombal la ci képp ko xam ne mënoo ko waaye xadis bi wéy wane na ne nekkoon na ci tukki or moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis ba ko jiitu itam wax na ne kum neex boo nekkee ci tukki nga or kum neex itam boo nekkee ci tukki nga dog te fay bis boobu wala bis yooyu solo nañ jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne jaabir moo nettali ne nekkoon nañu ak yonent bi sallallahu alayhi ci tukki mu ne yonent gis buuxante bu rëy benn waay boo xam ne mu ngi ca digg ba ñu koy utal lu dox digganteem ak jant bi di ko eral yonent bi ne lii mooy lan ñu ne ko ku oor la tàngoor bi moo ko sonal yonent bi ne dëgg-dëgg bokkut ci jaamu yàlla wala bokkut ci baax ngay oor te fekk yaa ngi ci tukki sallallahu alayhi wa sallam baabu lam yacib asxaabu nnabiyi sal allahu alayhi wa sallam baaduhum baadan fi sawmin wala iftaarin xaddasanaa abdullah ibnu maslamata an malikin an xumaydi tawili an anas ibni malikin qaal kunna nusaafiru maca annabiyi sal allahu alayhi wa sallam falam yacib alsaa'ima ala almuftiri wala almuftiru ala alsaa'imi bunti saxaaba yonent bi sal allahu alayhi wa sallam nekkoon nañ ci tukki ci weeru koor waaye ñi ooroon nekkuñ di ayibal ñi dog ñi dog itam nekkuñoon di ayibal ñi oor solo dañ jëlee ci anas ibnu malik radiallahu anhu mu nekkoon nañu yonantu bi ci tukki mu ne kenn ci ñu oor ayibalut kenn ci ñu dog kenn itam ci ñu dog ayibalut kenn ci ñu oor maanaam ñi attan koor gi oor nañ kenn waxu leen dara ñi ko àttanut dog nañ te kenn waxu leen dara te yonentu baa ngi ci biir tukki mi sallallahu alayhi wa sallam baabu man aftara fi lsafari li yaraahu nnaas xaddatanaa muusa bnu ismail xaddatanaa abu awaanata an mansuurin an mujahidin an taawusin an ibni abbasin radi allahu anhuma qaal xaraja rasulu ullahi sal allahu alayhi wa sallam min almadinati ila makkata fa saama xatta balaga usafaana ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر bunti nit ku dog ci weeru koor te fekk ci tukki la nekk emut ci dog waaye daf ko wan nit ñi dafa wan nit ñi ne man ooratuma bis bi solo nañ jëlee ci ibnu abbas radiallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa a génne na madina jëm makka ci waxtu koor mu ne mu oor ba egg ci place bu ñuy asfaan mu ne mu laaj ndox moom yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne yëkkati ko ci ay loxoom ba ñépp di ko gis mu dog ba nim egg makka te loolu ci weeru koor la ibnu abbas nag teg ci ne yonent bi sallallahu alayhi or na ci weeru koor fekk mu ngi ci tukki te dogut dog na itam ci weeru koor fekk mu ngi ci tukki kon léegi mu ne kum soob oral kum soob itam dogal te xam ne da koy fay baab wa ala alladina yutiquunahu fidyatun qaala ibnu amr qaala ibnu umara wa salamata ibnu al akwaci nasaxatha shahru ramadan alladi unzila fihi alquranu hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum alshahra falyasum wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxra yuridu allahu bikum alyusra wala yuridu bikum alusra walitukmilu aliddata walitukabbiru allaha ala ma hadaakum wa laallakum tashkurun wa qaala ibnu numayrin xaddatana alacmashu xaddatana camru bnu murrata xaddatana ibnu abi layla حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصيام فأمروا بالصوم bunti li yàlla waxoon ne ku ko atanut nga jotu maanaam bis boo mënta oor rek nga jotu loolu bi alquran njëkkee wàcc yàlla wàccee koor bi mu farataalee koor ci nit ñi comme ni ko farataalee ci ñi leen diitu dafa xawoon a diis ñoom ba mu ñoom ñu oyofal ko ne képp koo xam ne mënoo ko rek na nga jotu maanaam joxe lu suur miskin te bañ a or bis boobu waaye nag gannaaw gi bi yàlla wàccee laay yoo xam ne wéral na ne nañ oor ci la leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal ne nañ oor képp ku nekk ci feebar nag wala nga nekk ci tukki mën nga jël ay fan yoo xam ne danga koy leb waaye da koy fay gannaaw loolu mu ne yàlla dafa jublu yombalal leen waaye jubluwut ci yéen jafel ko ci yéen waaye nag na matal lim nangeen ngeen màggal yàlla itam ci lim leen jubal jëm ci ngir ngeen bokk ci ñi nga xam ne danañ sant yàlla solo nañ jële ci amru ibnu murrata mu ne ibnu abi layla moo leen nettali ne yonentu bi sallallahu mu ne ne mu ne sahaaba yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo leen nettali ne ramadan bi mu ñëwee maanaam weeru koor bi ko yàlla farataalee dafa diisoon ci ñoom lool jamono boobu kum neex rek dangay ngay layal bis bu nekk benn miskin te bañ a or bis boobu ndax diis bi mu diisoon ci ñoom ñu yombalal leen ko ci noonu waaye nag bi laay ji wàccee ne an tasuumu xayrun lakum in kuntum taalamuun ne ngeen oor moo gën ci yéen su fekkoon ne xam ngeen ci lañ leen digalee nag ne nañ oor te bàyyi leele bi ñuy leele loolu mën a utu koor koor gi sallallahu alayhi wa sallam حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة solo nañ jëlee ci naafic mu jëlee ci ibn Umar radiallahu taala anhuma mu ne jàng na fidyatun taamu miskinin loolu njàngam alquran ay yoon yoon la am na xafsa am na warsh bu ci nekk wér na mu ne mu jàng laaya jooju ba pare na moom folli nañ ko lii ko folli mooy wa anta suumu xayrun lakum ngeen or moo gën ci yéen kon kenn mënatu toog di jotu te dara dalu la feebaruloo nekk ko ci tukki te boo feebaree nekk ci tukki sax soo wéree da ngay fay boo nekkee ci tukki itam su tukki mi jeexee ba nga dellu si gannaaw weer koo da ngay fay biseen ci leboon waaye nag toog rek sa kër di lele bur bu san nga leyal benn miskin te bañ a or laaye jële folli na ko wanta suumu ngeen oor xayrun moo gën lakum ñee leen baabu mata yuqda qadaau ramadan wa qaala ibnu abbasin laa ba'sa an yufarriqa li qawli llahi taala fa iddatun min ayaamin uxra wa qaala saciidu bnu lmusayyabi fi sawmi alcashri laa yasluxu xatta yabda'a bi ramadan wa qaala ibrahimu ida fatara xatta jaa ramadaanu ida jaa ramadaanun aaxar yasuumuhuma walam yara alayhi itaaman wa yudkaru an abi hurayrata mursalan wa bni abbasin annahu yutcimu walam yadkur walam yadkur allahu taala alitaam wa innama qaal fa ciddatu min ayaamin uxara xaddatana ahmadu bnu yunusa xaddatana zuhayrun an yaxya an abi salamata qaala samictu caaishata radiyallahu anha taqul kaana yakunu calaya alsawmu min ramadaana fama astatiicu an aqdiyahu illa fi shacbaan qaala yaxya alchuglu min annabii aw binnabii sallallahu alayhi wa sallam mu ne kañ la ñuy war a fay bor yu weeru koor Ibn Abbas ne na dara nekkul ci nga tàggale fan ya maanaam yaa ngi amee woon bori fukki fan ci weeru koor nga or ñaari fan noppalu demaat ba jamono nga or ñaari fan dara nekku ci waxuñ ne da ngay toptalee fan yooyu comme ni weeru koor toptaloo déedéet ndax fa iddatu min ayaamin uxar la yàlla wax ci yeneen bis rek yeneen maanaam kon mën nañoo tàggale bis yooyu nga xam ne dañ koy fay mu ne ibnu Musayyab wax na ne wax na ne ci or fukk ji mu ne du wér mukk lu may mu commencé ci weeru koor Ibrahim ne su fekkee ne sàggan na ba beneen weeru koor dugg te mu ngi amee bor su boobaa dana or weeru koor yi su weeru koor woo wéyee mu fay bor bi nga xam ne moom la amee waaye nag du tax mu mën a dem jox ay miskin ñu lekk bor ba mu amee woon wàcc ko duna yàlla tuddut sax leexele dafa wax ne fa iddatu min ayaamin xar maanaam nga lim yeneen fan or ko fayee ko li nga xam ne moom nga dogoon ci weeru koor yi nga xam ne moo jiitu solo nañ jëlee ci Aïcha radiallahu anha mu ne daan na am bori koor moom Aïcha ci weeru koor mu ne du ko mën a fay lu ma ci caabaan ndax lan ndax soxla yonantu bi nga xam ne moom la doon itteewoo moom Aïcha dafa bëri woon lu ko yonantu bi di soxla ba nga xam ne mënta fay bor yooyu lu may caabaan dana del seet loolu moom ngant dëgg la moom na soxla woo yonantu bi la doon def ba du mën a fay boroom lu may ci caabaan waaye nag bu caabaan jotee mu fay bor yooyu yëpp sallallahu alayhi wa sallam